tóor asim laay maa ngi tóor asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com tey mardi 12 février 2019 ñu ñëw yéen ci yéen kaay yi comme ni ñu ko doon defee rek ma ci ma koy séq ak Jamaïcain borom Mbirkilaan FM borom Vice FM borom Gàmbi borom Mbour léegi nag yokk nga ci Mbour sax ndax léegi doo toog tey yaa ngi Gàmbi suba yaa ngi Mbour soo mën a wër gi maa ngi lay nuyu. Lamine maa ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu képp ku ñuy suivre ci lutte tv point com ni ma koy waxee Vice FM ba sa Gambie Mbirkilaan FM ba sa Saalum Lamine yaa ngi may tooñ naan ma borom Gambie ak borom Mbour waaw démb lañ génnoon rek jaar Mbour waaye du ñu borom Mbour Lamine yow yaay borom Mbour. du mën a ñàkk revue de presse ci ànd ak waa MSD Prestige ak MSD Impact. xam nga leen ñi leen di ñi ñuy déglu tamit xam nañ leen ndax yaakaar naa ne feccum liir bu neexee nday jaay jàpp ci mbagg yi jëm duñ si ko wax feccam liir bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg loolu moom lu waaye ñàkk dégg dégg lu waaye ñàkk am dégg-dégg xam nga loolu mm-hmm. kon MSD Prestige ak MSD Impact moo tax ñoom ñoo jàpp ci mbaggu Lutte TV ñoo ànd ak ñoom di dem ñoom nag Lamine waxal sénégalais lan mooy seen liggéey ay oto la ñuy jaay di jaay tamit ay pièces détachées muy MSD Impact di luye ay oto tamit yaakaar naa ni chaque jour ma wax leen ko marque oto boo yor di wër pièce bu ci manqué boo leen woowee di nga ko am marque mu mënti doon nag boo leen woowee bu ñu ko amul sax ni la dans 15 jours boo ñu woowee ñu réew mi am na ñu fi yàgg di ñu napp oto bi ma yor marque bi amul fii ak lu ma soxla dama koy commandé Europe loolu moom jeex na fi lu fi waaye soxla naan Europe laa koy commandé ay wax MSD impact tang fi ak MSD précise boo fa demee moom oto boo mën a yor ci àdduna boo leen pièce laa soxla dinañ la ko indil. kon Lamine loolu moom bu ñu sonal gars yi di sonal moom jox la fi bis ni ki tey du mën a ñàkk waaye nag seen numéro téléphone ku ko soxla xoolal bu baax te nga déglu ma jox la ko 77 227 07 84 beneen numéro 77 393 33 10 ñu ñëw ci journal sunu laam waaye nag tey duñ koy commencé ci alaayun bi dañuy dem nag ci page 8 bi page 8 bi nag fa mu tey dafa grave wan ak Ama Balde di ñu wax ni làmb la war ñu Tapha Tine ak Bombardier di ñu wax ni làmb la yow nga xool ko ni tournoi bi dara du ko daax waaw la Lamine journal bi sax ni mu ko defee ak ñun liñ si xalaat dafa utee journal bi moom dafa indi rek ñoom ñaar yëpp mu teg ne ñaar ñi làmb la ñaar ñi làmb la am na nag lu ñu fi doon dégg fane ci gannaaw ne am na promoteur bu jógoon pour bëggoon def tournoi 4T di bëggoon ko ci diggante Balla Gaye Bombardier Ama Sène Modou Lo comme foofu sottiwul moom tournoi bu leer a ngi nii bu neex askan wi Ama Balde Gris Bordeaux Tafatine Bombardier ku tëgg tournoi bi dina nekk tournoi boo xam ne moom làmb dañ si jëriñu dañ si gis seen bopp. mbàccum gerte la te yaakaar naa ne ku kenn ku ci nekk ci ñoom ñeent di nga am koo ci jox revanche ñoom ñeent ñëpp. yëpp ay revanche la ay revanche yu doy waar moo am ci biir tournoi bi moo tax mu nekk combat boo xam ne moom bu tournoi boo xam ne moom bu taxawoon moom tournoi bi waxuma la waaye 8 sax ëpp na doole loolu. du mën a ñàkk ndax Gris Bordeaux ku ci nekk yaakaar naa ne fii laale nga benn yoon nga laale sax morom ta Bombardier rek moo fi laale ak ak ñaar ñi Gris Bordeaux ak Tapha waaye ku ci nekk laal nga fi kenn daal. noonu la demee Ama Balde moo fi laaleegut ak euh, Bombardier waaye laale naa Tapha Tine tamit laale naag Bombardier laaleeg Ama waaye laaleegut tamit moom Bombardier rek la fi laaleeg mu nekk tournoi boo xam daal Lamine bu amoon bu taxawoon promoteur bi nag ñun ñoo ko may loolu Lamine la ak Jamaïcain fii ci Lutte TV hmm. comme tournoi 4 rek la bëggoon bii moom tournoi 8 la Lamine du mën a moo tax promoteur bu ko sax Jamaïcain lii lii moom ñu war a def jam Lamine ñu def tournoi bu doy waar ci. est-ce que mënul dàq bi ñu bëggoon même bu fekkee dañoo jëloon quatre mbër yi nekk ci kaw sax même ñii bu ñu ci kaw sax waaye bii bii jamekee moo ma dàqal bële jam non bi moo dàq ndax tournoi bii ni tey ñi fi nekk yëpp ay xarekat lañ kenn du ci dellu gannaaw maanaam dina nekk tournoi boo xam ne Lamine du ma musul am ci lamb waaye tournoi bu mel nii musuñ ko gis ñun fi may jeexale ci ñoom ma mën naa la assuré leen di nga ci am benn victoire. non loolu du mën a ñàkk trois défaites moom bëri du si tegle si tournoi bi koo ci gis moom di nga am benn moo tax da nekk boo xam ne du yomb. dina neex dina yëngu. torop dina dina yëngoo. <laughs> Ama moom bi boole na ko ci ñi nga xamante ni mooy quatre personnes yi mu jàppoon moom la ñu wan tamit ci une bi ma ngay daw nag lii contre Papa Sow la ba fi mel ni boobu bëreegul feccagul waaye dafa àndoon ak confiance ba mu bëri ak Papa Sow moo ko instant bi moom mi ngi 100 m. am njaxasam la sol nekku si de takk ay dàllam ba mu dëgër moom di def 100 m ci ci terrain bi. Mm-hmm. moom avant combat bi la. moo tax tey journal bi indil ñu ko ci ala en bi di wax fan la daw jëm daw bi day daw pour jëli combat wala day daw pour wuti avance Lamine loolu nag xuus si ñu dem. daw boobu dafa niroog la muy wax ndax dafa samp ab laaj di laaj kan moo koy arrêté ndax kuy daw la ñuy arrêté 2012 ba léegi Ama Baldé déggul mu ñël 7 ans. Ama Baldé depuis combat am ak Gouye Gui kenn daanagu ko lan moo tax Ama léegi nit mën nit ñi mënatu ko mënatuñ ko daan jëm ah làmbu daal gëm-gëm la gëm na làmb gëm li muy def du ci bàyyi dara du ci maye dara lépp lu làmb laaj daf koy def boo bëggee nag nekk ci làmb ji moom lii amaa di def rek fi mu foofu ngay teg sa tànkam mm-hmm. di bëre boole kook fulla ak fayda ndam nag yàllaa ko yor te koy def moo tax daw mi muy daw waaji naan kan moo koy arrêté daw yi moom ku dawul nii moom pour nga arrêté ko du yomb lu leer nga wax ku dawul ni moom doo ko arrêté moo tax guy gi 2012 moo ko arrêté woon ndax booba danoon daw mu jàppe ko koo xamante ni showman la comme jos man tudde woon la showman nee nañ showman nag judd na muy Ama Baldé waaw moom tur moom bu fekkee sosoo moom sos moom ñu naan génn ci làmb génn ci làmb waaye tur moom waaye journal bi mu hmm. nekk na koo xam ne at yi fi def tey wax dëgg yàlla am def na fi ay performance yu doy waar la yu doy waar moo tax journal bi tamit dañu wax ni nag mystique fecc bu feccee mu neex gàllaay gabare na doole jabare na mbooloo ma bari na jëm waaw moom lépp la boole bu doon kaat moom kaat yooyu da koo ndar képp macha allah nañ ko nañ ko nañ ko wax macha allah nee nañ doole ji bëri na gàllaaj gi bëri na bu feccee mu neex mu ñëwee indi mbooloo kon nag ñeent yooyu la la la ñu seen si mbër te nañ ko ci moom moo tax pour mu war a toog du bëree moom dina nekk loo xam ne dina doy waar kon nag na ko gars yi seeti mu am combat tooyalaat xaftaan bi ndax bi waxaat nañu sax loolu noonu li ñu xalaatoon ndekete journal bi nu na ko fa nee na Gris ñoo nekk ci yoonam waaw loolu la journal bi bind moom journal bi ñett ñi la ko bindal Gris Bordeaux Tapha Tine ak Bombardier moo tax journal bi dugal ko seen biir moo tax moo xam ne ne tournoi bi moom bu amee moom Ama Baldé moom xam naa ne ñu koy soxla si lay bokk moom danaan ñett ñëpp laay jël mafia la yor te nee na ku ci bokkul xiir gi dalay dal moo tax journal bi tegal ñu Sa Thiès ca suuf di ñu Sa Thiès nag journal bi waxtaan na ak moom ndax bu saison bi tijjee ba léegi gis ñu ko mu bëre daaw la mu mujjee woon bëre loo 11 mars digganteem ak ak ak ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang booba léegi bëriwul ñëw na ci combat boobu sax nee na combat bu métti la combat boobu jafe na métti woon na ko lool. waaw Sa Thiès si mafia am la bokk moo tax mu ngi ci wetam. Mm. boo xoolee sax daanaka li sol sax dafa xaw a méngoo. Mm. ku ci nekk sa ak si nga sol fii nag Sa Thiès moom day tuus. Mm. moo tax journal bi xëy indil ñu Sa Thiès neen Sa Thiès dañ ko gëj gis. Sa Thiès bi nag ñu war ñu dañ ne Sa Thiès gannaaw bi ko booñaa daanee ba léegi. Sa mooy wax mooy wax. ne moom bu ma ko Boy na ci moom waxu la métti woon na naa ne daal parewaat na pour wàccaat si terrain pour jëflante waat ak ay naataango moo ko wax leneen la ñeneen ñi bëgg a jëflanteel nag nee na Yékini Junior wala wala Papa Sow nee na nag fixé wu ci kenn waaye ñoom ñaar ku ci ñëw mu bëre ak yow waaw moom la wax moom la visé ci kenn duraat ku ma si njëkk jox damay jël ndawal guddi la rek lamin lambee rek ku ci ku ci njëkk a daj da nga yaakaar ne yaa dajeeg lépp moo tax moom ñoom ñaar yëpp dafa ne ku ci ñëw ma bëri moom man Sa Thiès keneen a ngi nii koo xamante ne dafa bëgg combat muy Moussa mu soxla mooy Pape Ndoye wala Mama am na Pape Ndoye amagul combat ñu koy coow naan day dóore bu fekkee moom ay martom la yor moom Moussa Balla nee na par na pour martoy dal ko nee na Mama Lamine Pape Ndoye du ngeen fi lambee ñëw leen ñu bëree yéen damaa bëgg a bëri ak yéen ñi moom lamb ñu muy Boy Bawal ak Marley Tafa Mbër ak ki nga xamante ne mooy Mame la loolu tamit keroog def nañ seen face à face Assane Ndiaye moo ko tëgg le 23 mars la nar a ñëw ci diggante Mame Balla ak Tafa Mbër waaw Assane Ndiaye moo def lii de Boy Bawol la ñu indil ak Marley ñu ne déet na waaye mu indil ñu Mame Balla ak Tapha Mbeur bii nag combat bi moom la 23 neex moom xam daal Lamine damb ju doy waar la Assane moo génn fii muy Bawol production Assane bu mu génnee foofu ak loolu Serigne Mori moo ko def pour mois de mars la ba léegi. waaw sëñ Modou Niang moom foofu la génn tey Maurice Diarra de Mamaya moom moo taxawal loolu pour jëmale ko mois de mars bu ñu jógee ci élection yi moom tamit. Mm. muy Mouniang production moom journée moom yàgg naa yàgg na fee def ci làmb mm. mm. mu ngi participer ci développement de la lutte. Adrien Senghor journée bi loolu tamit di ngeen seetaan bi Bokar Samba Diéry. moom tamit demoon na fa jëlal ñu ko journal bi tamit xëy na war ñu Coly Faye Coly Faye mi soppeeku na de Jamaïcain waaw Coly Faye mi journal bi war ñu nag ay rastaam la dóor ay rastaam la dóor Coly Faye daal xaw ma lan moom Coly Faye Garga ah, kay boo xoolee ab Jamaïcain man ab Bob Marley laa ko yaakaaroon ab Jamaïcain li ñu may woowee daal Coly Faye moom la nuró ay rastaam la bàyyi mu wàcc guddal sikkiñam sëqal ko ba mu sëq loolu tax journal bi samp laaj di laaj ndax dafa bàyyi bëre waaw journal bee ñu koy laaj la ne Coly Faye dafa bàyyi bëre wala ci lan la nekk loolu nag journal bi moo koy laaj xam ne moom dina génn leeral ci kii moom leeralagu dara bëgg saison bi tijjee ba léegi muy Cheikh Pouy di nekk Adrien Senghor léegi nag instant bi dafa mel ne mooy kaa ñu gaay ndax instant bi nee nañ neuf défaites la tegale moom seex Pouy ah Cheikh Pouye de bëri na defet moom Cheikh Pouye daal moom adressé ngor la nekk rek maanaam chaque dimanche wala chaque samedi mbër dina ñëw jaar ci kawam jàll moo tax moom bi saison bi ubbeeg léegi sax waaye moo ëpp defet neuf na fi defet yem bu dul loolu mu dem seeti malien ma ah, malien ba mu ko waxee Lamine jigu ko de bi mu defet yi jeex na daal naa bi mu amatee defet lañ ko gëj a gis mm. xaj na kon malien dafa jum dafa bëggoon wax ne benn defet ama des mm. défaite yi jeex na fi. dafa la ñàkk Garga Mbossé mi ma doon tudd sànq journal bi wan nañu ko di ñu wax ni dafa raar. waaw Garga dafa raar journal bi daal nee Garga kenn xamul fan la nekk ñu dëkk parcelle ndax ñu ngi gis Garga wala déet ah xanaa ñu laajte ko rek ma laajte ko Omzo bu Garga di nuyu gars yi ñu suivre yëpp groupe luttetv.com ñama jamekee gars yi mer nañ la nee na gis ñu la dégg ñu la ñoom Fadja Fadja ak tuuti yaay Sarr imam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Pape mu Serigne Baara Mor Diakhaté ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit Babacar Silla ak ki nga xamante ne mooy Saliou Guèye borom Thiès buñ ma mere damaa nekk ci ay itte rek léegi tey incha allahu rabbi ñu gis ma man ak ñoom la maa ngi leen ziar di leen jox seen wàccuwaay dinañ waa groupe bi yëpp rawatina tuuti ay saar mi fa nekk ak képp ku nekk ci groupe bi rek maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay dinañu fan si Lutte TV bi yëpp fépp fu waay mën a nekk ci àdduna dinañu nekk ci kër gi yëpp ñoom Boucar Ndour ñoom Mohamed ñoom Youssouf ñoom Soda képp ku nekk Lutte TV personnel bi yëpp maa ngi leen ziar di Boucar mu nuyul ko waay waayam ji rek léegi seen ngelaw mbéj mooy dóoram bi ngelaw mbéj meloo ngeej xam <laughs> nee na moom man si réew mi waaye réew mi moom bu mu sonal boppam fii ku lu laay bu def ah. mënoo ah. laay ñu koy ziar ko jox wàccuwaayam di nuyu sunu grand gils hmm. borom Ikri route borom TV borom hôtel ba hôtel sedd neex na sedd na tur bi mu ko tuddi tur day hmm. jant bi hôtel ku dem Gambie te laajte woo fa rek yaa ngi ci erreur da ngay réer sax boo moytul boo fa demee da ñibbis fii ni Gambie neexul te Gambie dàq ci Afrique ndeke yaa yaa wax de Lamine saf ka ko métier moo tax dem nga jant bi dugg nga fa xam nga la fa nekk. am fa 4 jours am fa 4 ah. jours. yoo xam ne loo laaj rek ñu ne noonu la. xam nga bu fekkoon ay une heure de am bu fa mais loo ci dëgg la ñu ngi koy ziar di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam gils dafa war a indi pa espace Gambie Lamine mu ngi la ciy invité di Jinne Mori sunu xarit nga xam ne lamb ju rëy la fa tëgg. diggante nongoloo ak Boy Balla la 24 ñu ngi woo gaa la 24 incha allahu lamb ju rëy fële sa Gambie. à promotion tamit yaakaar naa ne moom tamit day ñëw le mars moom tamit buur kañ lay ñëw. buur moom mu ngi waaj double Tyson tamit waaye combat bi naa ne ci biir février bi am nañ yaakaar dina moom tamit mu ngi ci. ñu ngi koy jaar bu baax a baax di nuyu waa groupe Lambi Gambie journaliste yi fa nekk sa naataangoo yi Lamine ñoom ñëpp ñu ngi leen jaar ñoom Assane Kébé ñoom Alpha ñoom ñëpp ñoom Modou Kara Gueye ñu ngi leen di jaar Paate duñ bàyyi kenn. Mm. waa Vice FM nag di nuyu. personnel yëpp waaw ak Babacar Sarr mbir Kilaar FM ñu koy ziar baax a États-Unis ñoom Aliou lii ñu ngi leen ñoom Matar Bousso ñoom ñëpp ñu ngi leen di dem Espagne gauche droite ñu koy ziar ak Veuve Layen mm-hmm. libaas libaas gëj nañu ko dégg ñu koy nuyu borom Maroc waaw borom Maroc ñu ngi koy ziar moom Maroc la nekk libaas ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Maroc yëpp nuyu koy nuyu di nuyu Tigre tamit ki nga xamante mooy Khalilou Ka ak ñëpp ñu ngi seen wàccuwaay di nuyu tamit Ndiga Dia doomu nday Diouf borom Barcelone baax a baax. Fallou Sène doomu nday petit promoteur bu mag bi nga xamante ne keroog fii la bëre loo jamee ba mu xoox jamee kee sa bu rëy bi yëpp nekk da mënoo bëre tegal vidéo bi Lamine Petit maa ngi moom gis nga lu ñu bëree yaa doon arbitre yow dafa mel ni na ah. ndax Petit fi ma doon jàpp moo ma arrangé wul kii lay jàpp di téye di dagg ah. xam nga waaw di dagg samay ndombo ma ne ko nag dinañ arrêté boo bëggee ñu bëri nañ dem géej kenn ku nekk nga takk ngem nga ñëw ñu bëri kon suba dinañ ko leeral di jox ñëpp rendez-vous suba incha